sur 916 tests réalisés, 44 sont revenus positifs, soit un de positivité de 4,80%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 18 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. et nous avons eu cas issus de la transmission communautaire répartis entre Mbour 5, Touba 3, Almadi 2, Dakar Plateau 2, Nord-Foire 2, Pikine 2, Cité Djilimbay 1, Grand Dakar 1, HLM Mamel 1 Mexe 1 Ngor 1 Wokam et Tamba 1. 40 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 7 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce mercredi 2 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. à ce jour. 16 217 cas ont été déclarés positifs, dont 15 697 guéris, 335 décédés et donc 184 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt au patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans nos domiciles. Le ministère de la Santé de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective tey bésu alxames ñetti fan ci weeru décembre bi ñu nekk ministère de la santé de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waajal yi ci juróom-ñeent téeméer ak fukk ak juróom-benn test yi def ñeent fukk ak ñeent ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci fukk ak juróom-ñett cas contact mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew mooy importé waaye am nañ ci ñaar fukk ak ñi nga xam ne ay communautaire lañu mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko te ñooñu seen lim ni la tëddee Mbuur am na ci juróom Touba am ci ñett Almadi am ñaar Dakar Plateau ñaar Nord Foire am ñaar Pikine am ñaar Cité Djilimbay am benn Fatick am benn Grand Dakar am benn Géejawaay am benn HLM am benn Mamel am benn Mexe am benn Ngor am benn ko am benn ak tàmba am na ci benn ñeent fukk malade yi nga xam ne dañoo entré woon hôpital wér nañu bës niki ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde juróomi ñaari juróom-ñaari malade ñoo nekk réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bu su démb ba ñaar ñaari fan ci weeru décembre biñ nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dale ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak juróom benn ak ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ci ay cas yi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom ak juróom benn téeméer fukk ak juróom-ñaar wér nañ ci ñetti téeméer ak fanweer ak juróom ñoo ñàkk seen bakkan mu des téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent si lalu hôpital yi ci loxo docteur yi ministère de la santé de l'action sociale mu ngi ñaanal kooku génn àdduna yàlla xare ko àjjana di ñaanal ñooñu des hôpital ak ñi nga xam ñu ngi leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé de l'action sociale mu ngi woo askan bi ñu gën a sàmmonte ak digle yi muy joxe bés bu nekk di leen fàttali nangeen aar seen bopp aar seeni njaboot aarale askan bi di bàyyi xel ci sol seeni masque ni mu waree masque dafa war a muur gémmiñ ak bakkan di raxas seeni loxo ndox ak saabu wala mu ngeen jëfandikoo tamit gel waaye na fekk gel yu baax yi di dànnante ci ndaj yi ndaje yi ak ci yenn bërëb yi